salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg tey topp yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ju wér ji bawoo ci moom rek am nanu mbégte ci lu nu mën a dellu si di leen dégtal seen émission yoonu njub xarit yi mbind mi nee na na ku nekk di wax dëgg moroomam ndax ku nekk sa genn wàllu morom nga loolu wax ju wér la ju mën defar bépp ànd rawatina ak njaboot noonu kon lanuy dugge ci sunu njàngum tey mi jëm ci mbirum njaboot bu ko defee dina nu gis lan mooy njaboot ñan ñoo ko séq ak lan la yàlla di xaar ci njaboot noonu xarit yi ni ngeen ko xame gannaaw ba yàlla sàkkee aadama aadama dafa xool li ko wër gisul kenn ku mel ni moom ku koy wéttali ci kaw loolu yàlla ne dinaa sàkkal aadama ku mel ni moom mu di ko dimbale bi loolu amee yàlla aji sax ji loo aadama nelaw yu xóot root ci genn ci faaram defar jigéen ca faar ga mu jële ci aadama indil ko ko gannaaw loolu yàlla wax na it ne góor dina beru ndeyam ak baayam ànd ak jabaram ñu nekk kenn loolu tekkiwul ne boo sëyee rekk dangay wàcc say waajur déedéet loolu dëppowul sax ak li mbind mi wax ci diggante doom ak waajuram bi mu naan teralal sa ndey ak sa baay ndax te ki defalul dara ay waajuram weddi na yoonu gëm wi ba yées ku gëmati kon li yàlla bëgg su mënee nekk mooy taalibe kirist bi sëy sos njabootu boppam noonu duñu may kenn muy jël seen place ku nekk dafa war a toppatoo njabootu boppam kër mënula am ñaari kilifa ñaari kuuy bu ñu naanandoo ci mbalka béjjën dalamte kon nu gis ne ak njaboot a ngi tàmbalee ci sëyub genn góor ak jenn jigéen te gannaaw ba yàlla sàkkee aadama ak awa dafa leen ne woon nangeen giir te bare ba fees àddina ko noonu ñaari way dencante yu nekk it su leen ko seenuk wér maye mën nañoo am ay doom mu di barke bu bawoo ci aji sax ci ci kaw loolu kon nu gis ne njaboot ñett ñii la ëmb jëkkër ji soxna si ak doom yi waaye itam ñoom ñett ñooñu ku ci nekk yàlla jox na ko ay wareef yu mu war a sàmmoo ngir tafeexu njaboot gi doon du biir ngir loolu mën a am nag ku nekk ci ñoom dafa war a am xelum yàlla ci biir xolam di ko déggal moom la mbind mi wax bi mu naan gëmal yéesu borom bi kon dinga mucc yow ak sa njaboot kuy topp sa naftu nag doo mën a neex yàlla ku amul xelum kirist bokkuloo ci yàlla fees leen ak xel mu sell mi teg ca nangul sa moroom ci biir wegeelu kirist léegi nanu gëstandoo ci waree fi kenn ku nekk ci ñett ñooñu ci bu jëkk yàlla dafa jox sas wu rëy góor ñi bi mu waxee ci kàddoom ne góor mooy kilifak soxnaam ni kirist nekk kilifak mbooloom ñi gëm muy jëmmam ji muy sàmm loolu nag tekkiwul ne góor ñi dañu war a noot seeni soxna wante li leen yàlla sant mooy li mu wax ne yéen góor ñi na ku nekk bëgg jabaram ni kirist bëgge mbooloo mi ba joxe bakkanam ndax moom na góor bëgg jabaram ni mu bëgge boppam bëgg sa jabar bëgg sa bopp la ndaxte kenn mësula bañ sa yaram waaye danga koy dundal di ko fonk noonu it la kirist fonke mbooloo mi ndaxte noo di cëri jëmmam mbind mi nee na moo tax góor dina beru ndeyam ak baayam di taq ci jabaram ñoom ñaar doon kenn ci lu wér góor warula noot soxnaam ndax li muy kilifaam waaye wareefu góor kay moo di mu bëgg jabaram ni mu bëggee boppam te sax ni yàlla sàkkale woon aadama soxna kéemaan gu mat a bàyyi xel la rawatina ci sunu jamono ji nga xam ne ñu bari joxuñu jigéen gëddaam ni yàlla sàkke jigéen mooy wone ne ku ñu war a fonk la ndaxte ci faaru góor la ko yàlla sàkke muy firndeel ne yàlla sàkk ko ngir ñu koy toroxal su yàlla namoon loolu ci jigéen kon ci tëstanu aadama la koy sàkke noonu jigéen nekk ku ñuy dëggaate waaye yàlla defu ko kon jigéen dees koy teral mbind mi won nanu it ne mbëggeelu góor ci soxnaam lu am solo la maanaam daal ni mu bëgge boppam la ko war a bëgge kon mu war koo jaral sax bakkanam mel ni kirist mi bëgg mbooloom way gëm kirist mi ba mu jaraloon ko jébbal boppam dee te it góor dafa war a bëgg soxnaam di ko toppatoo ni mu bëgge boppam ñun ñépp xam nanu ne amul kenn ku ànd ak sagoom ku bañ boppam ku nekk dafa fonk tey toppatoo boppam noo nooni la góor gu nekk war a fonke soxnaam di ko dundal dëkkal ko di ko dëkkoo bu lu jëkkër wéree ci soxnaam dina jur lii di muñ njégal laabir takkute ak yërmande noonu góor gi dina jiite jabaram bu jekk di ko aar ak a sàmm bu booba du nekk jëkkër ju wex mbaa mu tàng bopp ba bu génnee kenn du yàkkamte mu dellusi ci kër gi waaye naka jabar yi ñoom it am nañu ay wareef ci njaboot gi ci seeni diggante ak seen jëkkër moom la yàlla wax bi mu naan naka yéen jigéen ñi nangeen nangul seeni jëkkër ni su doon borom bi ndaxte góor mooy kilifak jabaram ni kirist nekk kilifa mbooloom ñi gëm muy jëmmam ji muy sàmm ni mbooloo mi jiitale nag kirist noonu la jigéen ji war a jiitale jëkkëram ci lépp kon li yàlla wax ci aay yi wone na bu leer ne li mu sant jabar ci boroom këram mooy mu déggal ko dégg ndigal lu am solo la bépp réew mu bëgg a aw yoon dina sukkandiku ci kilifteef ak ndigal maanaam faaw am réew am ay kilifa ak ñuy déggal sarti réew ma su nguur guy doxal loolu amul réew ma dina jaxasoo ku nekk di def lu ko neex ba réew ma jaare ca tas noonu it la ak ak njaboot njaboot goo gis war na am kilifa te njaboot ga di ko déggal ci lépp lu baax dëppoo ak coobare yàlla yàlla ci boppam moo jiital góor jox ko kilifteef ci biir njaboot gi yàlla firndeel na ko ci li mu jëkk a sàkk góor soog cay teg jigéen góor la yàlla jox kilifteef jigéen mu sant ko nangul boroom këram waaye jigéen ñi dañu war a xam ne nangul sa jëkkër taxul jigéen yées mbaa mu gën a suufe góor déedéet bari na sax jigéen ñu sut góor ci fànn yu bare ci saayir ak ci baatin waaye jigéen la yàlla ne mu nangul jëkkëram ni su doon borom bi kon bu jigéen déggalee jëkkëram yàlla ci boppam lay déggal loolu rekk waroon na tax mu nangul boroom këram te bañ a fippu ay musiba rekk lay jur bu nu delloo sunu xel ca toolu ajana dinanu gis ne fippu ak bañ a dégg ndigal bokkoon na ci li tax sunu maam awa lekk ca doomu garab ga noona awa nangulul woon jëkkëram ndax jëloon na palaasu jëkkëram jiite ko ci yoonu bàkkaar te aadama moom tànn déggadil yàlla noonu bàkkaar daldi dugg ci àddina li loolu jur lépp ci safaan nag gisees na ko wante mbokk déglukat yi ñaare dégg ndigalu jigéen ñi dafay dellu ci mbëggeelu góor ñi maanaam su góor gu nekk bëggoon jabaram ni yéesu Kirist bëggee mbooloom ñi gëm Kirist kon jigéen ñi duñu am ay jafe-jafe yu bare ci nangul seeni jëkkër waaye nag loolu waru la tere soxna si xam ne fitnaal boroom këram waru ko ndaxte yàlla rocciwul woon yaxu kaaŋ walla kawar ci bopp góor sàkke ko jigéen ba tax kon jigéen warul a fexe toog ci kaw bopp jëkkëram ci tënk daal wareefu jigéen mooy déggal jëkkëram ci lépp luy coobare borom bi jigéen dafa war a jiital jëkkëram ci lépp ni jàngu bi jiitale kirist warula def mbaam muy dugg ci lenn te déggowuñu ca mooy tax yow jabar ji nga jekk ngir dimbale sa jëkkër ci sas wi ko yàlla dénk di sasu njiit ci njaboot gi te loolu dina biral sa wegeel ci sa jëkkër ni ko mbind mi santaane ci lu wér jigéen mbindeef mu yàlla fonk la ba tax na amul keneen ku ko mën a wuutu ci palaasam bi ko yàlla teg xarit yi ñu déglu su ku nekk ci ñaari way dencante yi xamee sas wi ko yàlla dénk te di ko doxal su ku nekk di wut njariñu moroomam dinañu dund ci bànneex noonu su leen yàlla maye ay bant doom yi dinañu nekk ci anam yi gën ci seenub yar waaye lii lépp laata muy mën a am te jur bànneex buy sax faaw mu am lu ko jiitu maanaam sa dund ngëm dëppoo ak ni ko yàlla bëgge te li yàlla bëgg ci képp kuy nit mooy nga gëm musalkat bi mu yónni mu dee ca kaw bant ba ngir far boru bàkkaaru doomu aadama yi ko defee dinga am kàttanu def wareef yii yépp am dund njaboot gu dal te barkeel ndax bu boobaa lépp ci loxoy yàlla nga koy wékk wante soo wékkee lépp ci sa mën-mënu bopp li wér mooy mën ngaa jéem wante dara ndaxte mbind mi nee na su yàlla tabaxul kër gi ñi koy tabax dañuy liggéey ci neen bu loolu wéyee doom yi ñoom it yàlla sant na leen ne naka yéen xale yi nangeen déggal seeni waajur ci li ngeen bokk ci borom bi ndaxte looloo rafet teralal sa ndey ak sa baay mooy ndigal li jëkk a ëmb dig maanaam ngir nga am gudd fan gu ànd ak jàmm te yéen waajur yi bu leen bund xale yi waaye ngeen yar leen di leen yemale ak a yee ci borom bi li nuy gis mooy ne mbind mi day ñaax waajur yi ñu farlu ci yaru xale yi mu war a nekk yar bu dal waaye itam ñu bañ leen a bàyyeeg seen sago ñuy asaru dañu leen war a yar di leen jàngal ak a jubbanti ci mbëggeel ak cofeel te di leen tette ci ngëm gu wér ci yàlla aji dund ji boroom kër gu nekk sàmm la ci njabootam te ëllëg dees na ko laaj ni mu doon toppatoo gétt gi ko yàlla dénk waaye nag xarit yi deesul joxe loo amul te it dëgg-dëgg garab du meññ lu dul lañu ca gaje moo tax faw waajur wi jëkk xam yàlla bëgg ko te wóolu ko ci lépp su loolu amul fan la doom yi di jële cëslaay waaye su waajur wi amee ngëm gu wér ci borom bi yéesu bëgg ko te wóolu ko ci lépp doom yi dinañu mën a am cëslaay gu wér noonu xale yi dinañu sawar ci déggal waajur yi waaye xale yi ñoom su waajur yi melul nañu waroon a mel sax li war xale yi mooy ñu wek leen te bëgg leen bu ko defee njariñ rekk lañu cay jële léegi nag xanaa nu fàttali leen rekk ne li nu dégg lépp ci mbirum njaboot ak sasi yàlla dénk ñi ko séq am nañu solo waaye ni nu ko tàmbalee woon wax sànq wareef yooyu yépp ak koo mën a doon doo leen mën a matal mukk soo feesul ak xel mu sell mi maanaam soo sukkandikuwul ci borom bi yéesu gannaaw ba nga ko gëmee ni sa benn musalkat bi am kepp ni ko mbind mi tërale yéesu moo di musalkat bi dee ca bant ba te dekki ca ñetteelu fan ba looloo tax mbind mi ne rëccu leen nag te wàññiku ci yàlla ndaxte yonent yépp seedeel nañu ko ne ñi gëm ci turu almasi bi yeesu yàlla dina leen baal seeni bàkkaar te may leen xel mu sel mi wante soo wekkul sa yaakaar ci musalkat bi yàlla yónni jéem rekk tële bàyyi ngay def ndaxte kàttan gi war a nekk ci yow nga soog a mën a sàmmoonteeg waree fi njaboot gi ci borom bi yeesu rekk nga ko mën a amee. noonu soo gëmee saraxu yaramu yéesu mi musalkat bi dinga mucc ci mbugalu safara su dul fay mukk te loolu rekk ndaxte jaare ko ci kàttanu xel mu sel mi yàlla dina la may bés bu nekk xel ak mën-mën nga mën a nekk borom kër wala soxna mbaa doom juy jëfe ay wareefam ci biir njaboot gi mu dëppoog ni ko yàlla bëggee nu ngi leen di gërëm ci déglu bi su ngeen amee ay laaj ci li ngeen dégg tey bind leen ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis wala boog ngeen bind nu ci sunu adresse électronique maanaam yoonu njub at saint tout point sn yoonu njub arobase sentout point sn yoonu njub nag nii lañ koy binde y o o n u n j u b na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci lim bind mi wax ne gëmal yeesu borom bi kon nga mucc yow ak sa njaboot feesal ak xel mu sell mi teg ca nangul sa moroom ci biir wegeelu kirist